Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa ngi teewaat fii tey sa wet du la nuyu du la ziar ziara boo xam ne ci sama xol la ko tibbee jëm si yow sëriñ Touba di nuyu it njabootu sëriñ Touba gi fi teew yëpp rawatina sa rakk yu baax yi fi teew ak mbooleem jëwriñ ñi ànd ak ñoom ak mbooleem taalibe yi fi teew yépp sëñ bi sama yitte moo doon bi ñu génnee ci élection yi rek ma ñëw seet si la santaat la gërëmaat la waaye nag xat-xatu jamono yitte yu bare bare ci bitim réew ba démb moo ci mujj ah, moo waral ñëw bi yéex war naa jóg nuyu ji këru diine yépp waaye tey laa doog a tàmbali fii ci yow ñëw nuyu si la ziara si ñëw bi nag mën naa koo tënk ci ay tàmb yu néew ba ci jiitu mooy ñëw naa sëriñ bi ci sa kanam ngir santaat la gërëmaat la ci sa jàppale boo xam ni man de xam naa ko ndax lu wér la loo wane la waaye it lu mu gis la ñëw naa itam feddali la sama taalibe gën la joxaat suñu bopp gën a wane kóolute bi ñu am ci yow ndax xam sa yërmande ak sa ñeemtal ci man te it ne woon nga moom bul am benn jaaxle bul am benn jaaxle ndax lii nga ma wax ci yitte de kii nga xam ne moom lay liggéeyal muy Sëriñ Tuuba ci dëkkam bu tedd bii moom lay dënk say mbir kon nag ñëw naa sant la waaye santati sëriñ bi santale la it sëriñ bi ndax lañu waxoon gis naa ko te yàlla may na ma ci ndam loo xam ne coow amu ci weddi amu ci te it li ëpp ci réew mi seen taxawaay Euh, féddali ñu kóolute googu li moo tax war nañu ñëw it sant leen Sëriñ bokk na ci li gën a tax ma teew fi tey ginnaaw bi ndam li amee terewul dama woote woo jàmm ci réew mi woote it waxtaan réew dañ koy waxtaane mënoon naa yem ci ndam li eh, doxal samay xalaatu bopp ak doxal programme bi tax réew mi delloo ma ko ak kaddo waaye waxtaan woote boobu itam ñu sant si suñu borom bu baax ndax wuyu nañ ñu rawatina këru diine yi ak sax kujje politik bi yàlla def na tànn naa koo xam ne ci réew mi am nañu yaakaar si taxawaayam muy président Famara Ibrahima Sagna mooy doxal waxtaan wi te waxtaan wi dara taxu ko jóg lu dul lépp lu gën a mën a defar Sénégal te ñu war a ko mën a waxtaanee ba déggoo si te lépp luñ si déggoo ba ànd si danaa jëfee loolu ngir njëriñal Sénégal loolu mooy waxu débat bi nga xam ne euh, dialogue national ñu ngi koy tudd te ñu fas yéene gën defaraat rekk taxawaay bi gën defar liggéey bi gën a defar démocratie bi waaye gën a it sàmm kaaraange réew mi ndax kaaraange réew mi donc war nañ ci bàyyi xel te di leen ñaan ngeen ñu ci defal ay dog te xam ni li wër Sénégal tey lépp doy na waar te liy yàq ba ci diine ji bare na kon dafa am taxawaay bu mu laaj ci këru diine yi waaye aussi ci état bi loolu maa ngi lay xamal ni daal lépp lu ci war état bi moom dana ci taxaw taxawaay yi war ndax li jiitu ci suñu liggéey mooy yor kaaraange gu doy ci réew mi aar réew mi aar doomu réew mi ci jàmm ak salaam am nañ yaakaar ne lépp lu ci sa yitte ci fànn boobu doon ci taxaw bu baax a baax li ci des itam maa ngi lay feddali lii ma fi waxoon bi ma fi ñëw ci élection bi lépp lu Touba aajowoo ci liggéey dara duñu ko ci wàññi ci li ñu tàmbali woon kon maa ngi ñaan nga ñaanal ma mandat bu bees bii may tàmbali ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk mandat boo xam ne mën nañ ci liggéey lu ëpp lañu defoon ci biir weesu te it su boobaa lépp lu war si jàppale la sa liggéey bi incha allah fas yéene na continuer di ko doxal dama ko doon defee di ko fëddali njaboot gi yëpp di nuyu njaboot gi fi teew yëpp di leen sant yàlla boole na ma si ak ñu bare bare kon maa ngi leen di nuyu waaye bu ñu doon nuyoo ziyaara rek ziyaara boobu yegg seen na si ñëpp maa ngi santati bu baax a baax di la gërëm loolu rek moo doon kàddu gi eh, di sàkkuwaat ñaan rek ak di la fëddalewaat daal sama taalibe ak sama bëgg nga jàppale ma ci réew mi ndax sama yitte yëpp mooy lu jëmale Sénégal kanam ba ëllëg moo fi jóge ku ne dana xam jéego yaman indi Sénégal fa ma ko fekk ak fa ma koy bàyyi loolu rek mooy li ma yitteel li ci des moom ñu bàyyi ko ci loxo yàlla maa ngi lay sant di gërëm Mbàkke jërëjëf yàlla nga fi yàgg it lool te ànd ak wér jërëjëf jërëjëf président. Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer